te eh, fan yi nu weesu ñu waxtaanoon ci lañuy tudde tuddee sulhul hudaybiya te jii nu ñëw ngir waxtaan ci li ñuy tuddee xaswatu eh, fatxi makka fatxu makka mooy fatxu gi gën mage mooy fatxu gi nga xam ni ci la yàlla terale diineem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 seen kilifa di ko ñuy wax nawfal ad-dayli moo bocc jaasin rek daal di ànd ak eh, banu bakkar ñu dal ci kaw bani xusaa di leen rey rey gu metti waa Qurayshin eh, daal di occasionné gi ñoom itam di ñëw jàppale bani bakkar ci rey googu ñu rey giir ñu di leen topp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 weetu wetu néeg boobu nga xam dañu ko daan warmaal naka jekk waaye loolu nag mooy ak kéefar ak kéefar moom li muy tekki mooy warma lu mu la wax ni la warmaal naa ko it ay wax la rek waaye mënuñu ko dëggal ci noonu ci la ku ñuy wax Amr ibnu Salim alxusaayi daal di ma dina Madina seeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee mi ngi ko fekk ci jàkka ji mu toog biir saxaaba yi mu daal di yëkkati xasida gi di sàkku xettali ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa rabbi inni naashidun muhammada xilfa abina wa abi xil atlada qad kun qad kuntumu wuldan wa kunna waalida summata aslamna walam nanzi yada fansur hadaaka allahu nasran uyida waddu ibadallahi ya tuuma dada فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعودا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا wa hum adallu wa aqallu adada hum bayyatuuna bilwatiiri hujjada wa qataluuna rukkaan wa sujjada bi mu taree bayit yi te maa ngi jafandu ci yow di woo Muhammad mi amoon kulëre ak sunuy bay daan yonente bi da ngeen a nekkoon ay doom nu doon seeni way jur te loolu eh, ni ngi ci jublu junju ni ndey Manaaf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 Euh, te fekk nanu ñuy rukkoo ak di sujjoot ñu rey nu rey gu metti fanaane nu rey ci fa ñuy wax watiir waaye ana lu yonente bi tontu bi mu waxee ba noppi bi mu daanelee rek yonente bi dane ko nu sérta yaa Amr ibn Salim dimbuleef na la yow Amr ibn Salim daal di jóg ca saa si laxasaay yonente bi nag dafa baaxoo woon euh, ñaare fu mu masaan bëgg a dem du dëgg wane dëgg dëgg fa jëm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 xasan di toll ci gone ko tuuti di raam nekk seen kanam mu ne ko yow Aliyu yow di yaa ma fi gën a jege ci mbokk dama am itte ju andi nag te bëgguma dellu mukk ci ni ma dikke woon di sooy dama bëgg nga tinul ma Muhammad mu nangul nu yeesalaat ko la rek Aliyu ni ko ay gore yonente bi da nga xam ne dogu na ci mbir moo xam ne kenn mënu ca wax ak moom doon bin toll mu gestu Fatima ne ko ndax doo digal sa doom ji mu xett li nu mu doon ak xett li ci diggante leen ñi bu boobaa dana doon sangu ba araab yi ba ba addunay tukki mu ne ko sama doom ji agul foofu agul ci martaba boobu tey it yonente bi da nga xam ne lii mu nekk kenn nu mënu cee wax ak moom ba fi nag suuf si xat lool ci Abu Sufyaan mu amuk jaaxle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 jóge naa fa dem ci Omar ibn Khattab ma gis ne mooy noon bi gën a noonu ci noon yi ma jóge fa dem ci Ali ibn Abi moo ci gën a nooy moo ci tane mu jox ma ab xalaat boo xam ne def naa ko ñu ne ko lu la wax mu ne dañu ma dem ba ci biir mbooloo ma nga taxaw ni leen yéen mbooloo maa ngi sàkk ci yéen xeet léegi ñu ne ko def nga ko mu ne waaw ñu ne ko ba nga ko defee ndax Muhammad tontu na ci dara ñu ne ko mun leen des Muhammad tontuwul dara ñu ne ko ah yow kooku daa fo dalaa foyee yow kooku dalaa la yonent bi dal di waaje ngir jëm màkka nag ndax gannaaw kóllëre gi ñu seqoon nag moom firi nañu ko dara disul nag lu weesu daal di jóg yonent bi daal di joxe ndigal ni na ñëpp waaj mu dajale ci ab arme lu mat fukki junni nit yonent bi daal di ñaan yàlla ni ko nanga mas gumbaalal seeni bët te sakkal ma seeni nopp ba ma mën a bett Xuraysin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 ibnu abi balta bi ñëwee mu ne ko yow xaatib maa haza ya xaatib li lan la xaatib ne ko bul ma gaawtoo mukk yow yonente bi yàlla bi ndax man de ab jullit laa ku gëm yàlla laa ak yonente bi murtatuma ma sama diine waaye nag man damaa doon ku takkoo woon ak waa Qurayshin te bokkuma ci ñoom te it dama faa am ak njaboot ak i doom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 laqee mbirum yonante bi ba nim àggee xure waa Quraysh xelmati wuñu ci dara bi fukki fan wéyee ci weeru ramadan ci atum juróom-ñett ci gàddaay la yonante bi bàyyi ko Madina dem Màkka ànd ak fukki junni nit ci saxaaba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 ne ko jooju wax dara du ko gën a rafet fi moom Abu def loolu yonente bi daal di koy tontu ni ko laa tasriba qaala laa tasriba alaykum al yawma yaxfirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin daal koy tontu rek ni ko ak yeddel kon du leen jot tey yàlla na leen yàlla jéggal ku bari yërmande la noonu yonente bi continué ab doxam booba mi woor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 dajanteeg eh, Abu Sufyaan moom tam ni ngi fekkoon mu gën di gëstu si ay xibaar ba xam lu xew Abu Sufyaan mi ngi génn ànd ak ñu wax Hakim ibnu Hizam ak Badil ibnu Warqa Abbas ne na bi may dox ci guddi gi war gileemu yonente bi sallallahu alayhi wa ma dégg Abu Sufyaan mook Badil ibnu Warqa ñuy waxtaan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 alhamdulilah daal ne alhamdulilahi allasi am kana min ka bi xayri xaqin wala ahdin maa ngi sant yàlla mi nga xam ne def na nu ma nga agsi fii te amuñ genn kuléel gu dox suñu diggante yéen daal di génn gaaw bëgg a dem ci yonent bi sallallahu wasallam bëgg bëgg a sàkku ndigal ci moom ngir rey Abu Sufyan waaye Abbas nee na ma itam ma gaaw dàq gileem gi ngir jiitu jikko ci yonent bi nee na ba ma demee ba àgg bi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 Omar ni ma yow Abbas defal ndànk giñ naa ci yàlla ni nga jébbalu sag jébbalu moo ma gënal jébbalu xataab mi ma jur te du dara lu weesoo xam naa ni sag jébbalu moo gënal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jébbalu xataab kon li ngay wax bu ko waxati nee na yonente bi demal ak moom ca sag rax la boo xëyee nga indil ma ko nee na noonu laa ànd ak Abu Sufyaan xëyee ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yonte bi gisee ne ko way xàkk ne ko ne ko ay gore Abu Sufyaan ndax nag jotul ci yow nga xam ne yàlla rek kay buur nee na Abu Sufyaan ne ko jote naa la sama ndey ak sama baay xuma ku gën a lewet xuma ku la gën a mën a ko bokk xuma ku la gën a tedd waaye nag jot naa ne yàlla bu fekkoon ne am na benn yàlla bu ànd moom kon danañu jariñ dara ndax ñun ndaka jëkk am nañ ay yàlla yu ñu daan jàpp waaye ragal naan daal beneen yàlla wërta mën a mu ne ko Abu Sufyaan ndax war aggul ci nga war a xam nag ni man mii yonent bi yàlla laa Abu ne ko jote naa la sama ndey ak sama baay xawma ku la gën a lawet maa mu gën laa tedd maa mu gën laa mën a jokk bokk waaye nag loolu nga wax moom wax dëgg sama xel ba léegi nii rek euh, jàppaguma dëgg dëgg dëgg dëgg nga wax am na lu ci nekk daal lu bokkut ak loolu nee na Abbas ni ko tuskar ñal la jëbbalul te seere ni yàlla rek i buur la jëkk ñu lay rey nee na mu daal di jëblu dal di seere ni yàlla rek bor Muhammad ab yonentam la ay loolu day mel nii bu ñu ko xoolee sorewut ak jëblu ñàkk fexe dëgg dëgg daal euh, ngëm gu tàbbi ci xolum nit ki mu gëm ko daal euh, wóote na ak lii ñu gis ci njëbalu Abu Sufyaan gi ci jamono bi ak donte nag dem na ba mujj euh, ngëm googu dugg ci xolam mu gëmit njëlbeen gi moom nii rek la demee bi mu waxee loolu nag seere ni laa ilaha illa muhammadu rasulullah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 laxul tànk wala seeni bët rek ko koo xam mu ne subhaanallah abbas ñii ñan nag mu ne ko kii nag mooy rasulullahi ànd ak muhaajiroon yi ak lansaar yi mu ne ñii de kenn amut ñoom kattante daa ne wallaahi yow abal fadli sa doomi mbokk mi am na nguur gu mag nguuram gi rëy na ko yaa aba sufyaan innaha nubuwa lii ak nubuwa la bul waxate ak nguur mu ne waaw kon ak nubuwa naam daal ni kon ak nubuwa raayab lansaar yi booba Saad ibn Ubaada moo Ubaada moo ko yor bi mu rombee Abu Sufyaan Abu Sufyaan ni ko tey de xanaa bésu guerre la ni ko tey ji bis la boo xamante ne dañ ci daganal yi araamoon ni ko tey de bis la boo xamante ni yàlla turaxal na ci Quraysh bi yonent bi demee ba tolloog Abu Sufyaan Abu Sufyaan ni ko yow yonent bi yàlla bi xanaa déggoo li saadu wax mu ne ko saadu wax mu ne ko saadu nee na nangam ak nangam ak nangam yonente bi ni déedéet tey bés bu ñuy màggale kaaba gi waaye du bésu xotti orma tey bés la bopp yàlla teral na ci xuraysin du bés bu mu du bés bu mu toroxale xuraysin daal di yónnee ci saad jël drapeau bi mu waxoon ndax drapeau bi mu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 yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom wéy ba àgg ca fa ñuy wax zitwa waaye ndeysaan bi muy dugg mi ngi jat bopp bi ba mu xaw a tegu ci kaw giréem gi mu ngir toroxlul yàlla bi mu gisee teraanga ji ko yàlla teral mu turaxlu ba kenn xawuta mën a seen boppam ba kawaruk sikkim bi sax day xaw a laal euh, raxla gi mu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 yoruñ ay ngànnaay suluñ ay mbubbi koŋ moom mu digal ko ni ko nanga dem ci digg xurwa yow ba mu fekk la fa noonu la arme bi ànd ak doole dugg biir màkk noonu la Xaalid ibnu Walid jógee ca suuf di di daagu di dox ba dugg biir màkk ba fekk yonente bi sallallahu alayhi ca safa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 dëgg ñëw na ay caaxaan neen na ndax ay caaxaan dafay neen rek qul jaa al xaqu wa maa yubdiu al baatilu wa maa di wax baat yooyu di leen ko dëbb ñuy rot di daanu benn par benn bi mu wër kaaba gi nag mi ngi wër war mi ngi waroon ci kaw gileem gileem ak gileemam kero armalut dafa wër rek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 mooy lépp jéggale naa ko comme des ñaari mbir yooyu daal ni rayug njuumte ku ko def diye moo ca war te mooy téeméeri gileem yoo xam ni mu ni rayug njuumte gu niru ak tay ab yar aku yat diyee ju tar lañ cay joxe te mooy téeméeri gileem yoo xam ne dina ci am ñeent fukk yoo xam ne dañoo ëmb daal nag yéen waa Quraysh li ma leen di xamal mooy yàlla day dindil na leen dindil na leen caaxaani jaahil yi dindi na ci yéen rëy rëy lu gi jaahil daan rëy rëy lu ci ay baay ak di ko ndamoo na xam ne nit ñëpp ci aadama lañu bàyyi ko te aadama ci suuf la bàyyi ko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 ñu ne ko xanaa lu baax rek ndax yow mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga mu ne leen li ma leen di wax mooy la Yuusuf waxoon ay mbokkam te mooy laa tasriba aleykum al yawma yaxfirullahu lakum mooy yan leen yàlla jégal lu ma leen yedd tey yéen tamit noonu la tooge ci biir Kaaba gi Ali na Abi Talib ñëw te booba mi ngi yor caabi Kaaba gi daal ni yow bi yàlla bi dañoo bëgg nga booleel nu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 lépp lu lu lu ñëw ci lu baax doon lu lew ci ak lekk mën ngeen ko lekk lu leen ci dikkal rek mën ngeen ko lekk yàlla yéen la ci wóolu noonu waxtu julli jot yonte bi daal di digal bilaal mu ngi yéeg ci kaw kaaba gi daal di nodd wa sufyaan ibnu harb attaab ibnu usayd xaaris ibnu hisham ñoom ñëpp ñu ngi toog ci ëttub kaaba gi attaab attaab moom daal di wax ni Ousseydu tey am na chance moom mi déggut lii ndax bu ñëwoon gis gis kii yéeg ci kaw kaaba gi di nodd jàmm bu ñuul bii de dana am lu ko ko na xarlo xaaris daal ne man de gis naa ci yàlla ne bu ma xamoon lii dëgg la dinaa ko topp Abu Sufyaan man de du wax dara ndax wóor na ma ne su ma waxee doj yi danañ ko ko leeral waaye bi yonent bi génnee fekk leen ñu toog mun leen li doon wax xam naa ko kenn ku ne mu wax la la wax xaaris ak attaab daal di ne nashhadu annaka rasulullah ni ko seere ne yonent bi yàlla nga ndax lii ñun biñ koy wax kenn na dégg ko ba la ko wax noonu yonent bi daal di dem kër Ummu Haani bintu Abi Talib daal di sangu julli juróom-ñett rakka ci néeg Ummu Haani boobu mu doon waxtu yor yor moo tax ñu bari jàpp ni julli yor yor la waaye fekk julli googu salaatul fatih lañ koy wooye ci biir loolu ummu haani fat fat ñaari gorom yonente bi waaw yow ummu haani ñi nga fat fat nanu leen te fekk boobu Ali ibn Abi Talib leen bëggoon a rey moom soxna si mu tëj bunt bi bi waxee loolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ba yonte bi ko fat nañu ñi nga fat noonu lañ ñooñu mucce waaye nag am na ci ñoo xam ne yonte bi dafa neenal seeni deret ndax dañoo bokk ñi dàqoon na toñ ci waa Quraysh ni juróom-ñeenti nit ñoo xam ne dafa digle ni nañu leen rey ak doonte ci ron rédoy kaaba gi lañ nekk sax nañu leen rey te mooy Abdul Huzza ibnu Xatam Abdullahi ibnu Abi akrama ibnu abi jahl alxaaris ibnu nufayl ibnu wahb maqis ibnu sababa habaar ibnu aswad xaynataan ak ñeneen ñaari eh, jëbër yoo xam ni eh, ibnu xatar moo leen moom dañ ko daan woyal woy yañ ko daan woyal yépp nag mooy di ŋàññi yonente bi sallallahu alayhi wa ak ñu wax sarra moom itam ab jëbër la Euh, ci waa euh, bani abdil muttalib moom lañ fekkoon mu yor bataaxelu ba xaatib ibnu abi baltaa kook yi ko reyaale waaye ibnu abi sarx moom Usmaan daf ko indi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba aaral ko deretam mu jëbbulu ñu nangul ko ak jëbbalam fekk lu jiitu loolu dafa jëbblu woon murtatoon ñëwaat Makka Akrama ibnu Abi Jahlin moom itam dafa daw dem Yaman am moo ko sàkkul ak njëggal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ko soxna sa topp ko ba indiwaat ko mu jëbbalu jëbbal gu rafet ibnu xatal moom dafa dem jàpp ci ridoy kaaba gi am ku ñëw wax ko yonente bi ni ko ma nga dem wéeru ci ridoy kaaba ko yonente bi ni ko ray ko mu rey ko Maqis ibnu Sababa moom Numayla ibnu Abdillah moo ko rey ndax Maqis moom yi dafa jëblu woon jëkk loolu di rayoon kenn ci lamsaar yi daal di murtad demaat ci yéefar yi xaaris moom ku bari woon lu muy lor yonente bi ci Màkka la moo tax Aliyu moo ko rey Xabaar ibnu Aswad moom mooy kii gàllankooroon sox euh, doomi yonente bi ñu wax Zeynab ba bëggee gàddaay da ko dogale ba max ko ba mu daanu ci aw doj ba mbéemur ma mu ëmboon dafa yàqu xubaar daal di daw ci bis boobu waaye ginnaaw bi dafa jëbbalu ak njëbbalam rafet ñaari jëbar yi kenn ki rey nañ ko ka ca des Euh, dañ koo sàkkul ak njëgal bañ ko jëgalee mu jëblu comme sarrete it noonu lañ ko sàkkulee ak njëgal ñu jëgal ko moom itam mu jëblu safwaan nag bokkul ibnu umaya moom bokkul ci ñi yonente bi nee loon seeni deret waaye li mu doon bokk ci kilifay Quraysh yi nga xam ne ragal nañ dem na ba tiit ci boppam moom dafa daal di daw Umayr ibn Wahb al-Jumahi yi sàkkul ko ak njëgal ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi jégal ko daat koy jox kaala gi mu duggee woon Màkka moom la ko jox ni ko boo demee won ko ko ni ko jëkk naa ko Umayr dab ko booba mi ngi jóge Jidda bëggoon a dem Yaman mu delloo si ko léegi bi ñëwee ci yonante bi moom moo wax yonante bi ne ko nag ma may ma seet ñaari weer yonent bi ne ko may naa la nga seet ñeenti weer ginnaaw bi safwaan dafa mujj jëbbalu fekk soxnaam jëblu woon na jëkk ko yonent bi saxal leen ci seen dencante googu ñu continue am na ku ñuy wax Fudaala Fudaala moom dafa doonoon ku ñeme bi yonent bi dee wër kaaba gi mu ñëw ngir bëggoon ko rey waaye yonent bi wax ko li nekk ci xelam moom itam mu dal di jëblu noonu yi la fatu Makka deme yonente bi bisu ñaareel bi ginnaaw ba mu ubbee kaaba gi def na fa ab xutba sant yàlla tagg ko dal di wax ne yéen nit yàlla day araamal na Makka bés ba mu bindee asamaan ak suuf la ko araamaloon ngeen xam ni araam na ci araamaluk yàlla ba bis penc yi taxaw dëgganut ci kenn ku gëm yàlla gëm bis mu di fi tuur deret wala mu di fi dagg ak garab ku ñëwati bëgg koo woyafal ngir ni yonent bi duggoon na fi xeex fi na ngeen ko xamal ni ko yàlla moo digal ab yonenteem te digal la te digalu leen ko yéen yàlla ci boppam moo ma ko daganalal wenn waxtu ci benn bëccëg waaye dafa delluwaat araam na mu araame woon ca démb sa lii ma leen wax nag ku ko dégg na ko jotal ka déggut ka fi ko fekkee na ko jot li ka ko fekkewut noonu lansaar yi nag ñoo amoon tiitaange ci ni bi yonente bi fatxoo Makka mën naa am mu des fii moo tax bi fatxu gi jeexee dañ gis lépp nekk ci loxoom te mooy ab dëkkam di am réewam te fa la juddoo lansaar yi dañoo waxante ci seen biir ni waaw defewu leen yonente bi nag bi mu ñëwee fii ba ubbi suufam sii ak dëkkam bi du fi taxaw du fi toogaat nag booba yonente bi ma ci kaw safa yëkkati ñaar loxoom di ñaan ba mu ñaanee ba noppi ni leen lu ngeen wax ñu ne ko waxuñ dara waaye mu sonal leen bañ wax ko lañ wax mu ni leen yàlla tere sama dund seenub dund la sama day it seenub dee mooy sumay may dund maa ngi fi yéen su may maa ngi fi noonu la yonente bi ubbee màkka waa màkka it xam xel ni gen genn ci amut gudul bokk ci diini islaam topp ci ginnaaw yonente bi loolu moo waral ñun ñëpp ñu wàcc si daal dajaloo ngir jaayante ak moom yonente bi dal di toog ca kaw safa di jaayante ak nit ñi Umar ibn Xattaab nekk ci suufu safa di jël jaayante gi moom itam ñu jaayanteeg yonente bi ci dégg ndigalam ak top ndigalam ci luñ mën wax ni bi yonente bi jëlee am na ci riwaayaat yi ñu wax ne bi yonente bi jëlee jaayante góor ñi ba noppi la tàmbali di jaayante ak jigéen ñi boobu mi ngi ci kaw toog ci suuf di jaayante moom itam ci ndigalu yonent bi sallallahu ñuy jaayante moom ci mu di leen jottali li yonent bi sallallahu alayhi di wax wax nañ ne Hind bintu Utba mi doonoon soxna soxna Abi Sufyaan dafa maska wu ñëw ngir ragal yonent bi xam ko xàmmee ko ngir lam defoon Sayyiduna Hamza ndax moo ko reylu woon xotti biir ba génnee res wa yey ko buusu ko nee na bi ñëwee moom dafa maskawu yonente bi ni jigéen ñi nag maa ngi jaayante yéen ci ngeen bañ a bokkaale teg yàlla bañ koo boolee teg dara yonente bi daal ni te du ngeen sàcc ba mu ne du ngeen sàcc jaayanteeg man ci bañ a sàcc moomu daal di ni ko Abu Sufyaan nag day nay ba tax na damay jël ci alalam loo xam ne ak njabootam képp ci laa koy delloo aboo Sufyaan daal di koy tontu ni ko loo ci jël rek lew na la yonente bi daal di ree xam ni kii Hind la daal ni ko kon yow a Hind Hind ni ko waaw waaye nag damaa bëgg nga jégal ma la jàlloon yow yonente bi yàlla bi yàlla na la yàlla jégal yonente bi daat ci teg ni wala yas nii na te it dañuy jaayanteeg man ci njaaloo duñu ko def hind ni ko ndax as gor su jigéen as gor dana njaaloo moom loolu laaj yonente bi teg ci wala yaqtulna awlaadahunna te it duñu rey seen doom hind ni ko nun sunuy doom dañu leen yaroon ñu di gone yu tuuti yéen ngeen rey leen ci biñ màggee yéen a gën a xam la ngeen def fekk doom dañuy wax Hanzala ibn Abi Sufyan ñu ngi ko reyoon ca Badar bi mu waxee loolu ne suñuy doom ñun ñoo leen ñaroon ba doon gone yu tuuti bañ doonee ay mag ngeen rey leen kon yéen a gën a xam bi mu waxee loolu yonente bi Omar dafa dafa ree ba jaaxaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di muñ mu teg ca ni wala yaatina bi buhtaani waaye aw duur yi duñ ko fi andi loolu dañ di jaayante bañ ko fi andi indi daal ni buxtaan mbir mu ñaaw la li nga nuy digal daal lépp lu baax la jikko yu rafet la yant bi teg ci ni te it duñu la moy ci lépp lu baax loo leen di digal duñu la ci moy Hind ni ko jataay bii bi ñu fiy toog toog fii ngir moy sa ndigal indiwunu fi ba bi mu delloo dafa daal di tàmbalee dammu ay dammu te ay xiramam di wax ni dañoo nekkoon ci ak woru ndekete waaye lii dara wéru ci wax nañ ni ginnaaw bi Hind moom yi dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko bi yàlla bi tey day kaw suuf kaw suuf gisuma fi ku ma la gënal ni ko gisuma yenn waa kër ma gënal sa waa kër tey ji ni ko giñ naa ci yàlla yooyu yent yàlla bi ni Abu Sufyaan dafa doon ku mën a téye alal li ma lay laaj nag mooy ndax danaa am bàkkaar ci jël gi may jël dara ci alalam di ko lel di ko jox ak njabootam yent bi ni ko déedéet loolu aw yiw rek la naaw jigéen ji li muy jël ci alali borom këram te fekk borom kër bi daal doon ko mën a téye ba du joxe dara ginnaaw la mu ci jël da koy jël ngir jox ko njaboot gi loolee dara du la ci fekk noonu la yonante bi e, jaayante ak jigéen ñi daal di des màkka lu mat fukki fan ak juróom-ñeent di yeesal mandargay lislaam yi di won nit ñi ak njub ak ragal yàlla ci jamono yooyu ci la digal abu sayid abu usayd alxusan yi mu dem yeesali kenoy xaram bi daldi dal di tàmbali yónnee yónni lenn ci ay eh, ay soldat ngir ñuy woote ji ci ji ci islam ak di dam mu xiram yi mu yebal par mbooloo ñuy dem di dajji yi yi nga xamante ni dafa nekkoon ci peggu Makka yépp noonu la yeble ñu dammute ko am ku woote ca kaw ci biir Makka daal ni man kaana yu'minu billahi wal yawmil fala yadamu fi baytihi sanaman illa kasarahu yonente bi digle na ni képp ku gëm yàlla gëm bis penc bu mu bàyyi mukk ci néegam bu mu bàyyi ci këram ab xëram te ko noonu bi yonente bi ne tekk nag ginnaaw bu mu kaaba gi ba noppi ga ubbee màkk ba noppi la yebal Xaalid ibn Walid mu dem ca Uzza pour mabbi ko te xusa xeram boobu ñu wax xusa mi ngi nekkoon ci fa ñuy wax Naxla waa Qurayshin moo doon seen xeram bi gën a mag ci xeram yi ñu daan jaamu ak euh, mbooleem waa Bani Kinaana xeram boobu moo doon seen xeram mooy xeram bi gënoon na mag ci xeram ña ko daan aar mooy Bani Saybaan Xaalid ibnu Walid daal di ànd ak nit ñu war dem ba àgg fa daal di koy màbbu bi mu dellu see yonante bi laaj ko ne ko ndax gis nga dara mu ne ko déedéet mu ko kon màbboo ko demal nga màbbi ko Xaalid dellu nar lool daal di génnee jaaseem waaye ba mu fa àggee ak nar génnee jaase ji la am jigéen ju ñuul kukk def yaramu nen génn def yaramu nen ak bopp nen génn ci xërëm bi ki nga xam ne moo doonoon wattukat bi di yooxu waaye Xaalid daf ko topp daal di koy dóor jaasi ji xar ko ñaari gaal daal di dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko lam def yonente bi ne ko kookee mooy Xuzza léegi nag naagu na xam ne ni kenn dootu ko jaamooti fii ci seen réew mi ba faw noonu mu yabal Amr ibn al mu dem ca xiram ba ñuy wax suwaa ngir màbb ko moom itam ab xiram la woon bopp uh, waa bani xusey li ñoo ko moom waa xusey li ñoo ko moom mi ngi nekkoon ca fa ñuy wax ar rihaat mi ngi soree màkk téeméeri kilomètre juróom fukk ci penku penku wetu wetu càmmoñ bi uh, ci penku màkk ba fa àggee moom xamr ka ko doon aar ni ko loo loo bëgg mu ne ko yonante bi mu ma digal mu màbb ko mu ko loolu mënoo ko mu ne ko lu tax mu ne ko dañ la koy dañ la koy ne ko dañ koy aar mu ko la yow ba léegi yaa ngi ci ay caaxaan kon ni ko lii déggul gisut nga naan mooy aar boppam daal di koy jage daal di koy dammute daal di digale digal ñi mu àndaloon ñu damm ñu ñu ñu màbbu kii kii fañ ko dencoon Euh, tabax bañ ko tabaxaloon mu ñu màbb ko waaye bañ ko tojee fekkuñ fa dara mu ne ko ah, mu wax ka ko doon aar ka ko doon wattu naa ko léegi mënoo koo toj ndax lii am na kaaraange ji koy aar mu ko léegi nag ginnaaw bañ ko màbbee loo gis mu ne ko jébbalu na dox na sama bopp yàlla ci weer woowu ci la yonente bi yabale Saad ibnu Zayd al Ashali boole ko ñaar fukki faris ñu jëm ca Manaat manaata ab xërëm la ci xërëm yu mag yi la bokk moom euh, waa aws ak xasraj ak xassaan ak ñeneen ñoo ko daan jaam ba fa sax da àggee moom itam bi ni ko loo bëgg mu ne ko manaata laa bëgg màbbu mu ne ko mu yaa ngoog yaa moom sax daal di ñëw am jigéen ju ci génn ci biir moom itam def yaramu nen ak bopp nen naan yaa wayle yaa wayle mu daal di koy dóor waaye wa gardekat bi daldi wax manaata ni ko jëlal jëlal yat wi jëlal yat wi waaye Saad daldi koy dóor daal koy rey daal dem ca xiram ba daldi di koy màbbu dammate ko moom itam biir biir ga fi dara bi Xaalid ibnul Walid jógee ca Xuzza ginnaaw bu ñu ko màbbee yonente bi yabal na ko ci weeru Saabaan ci atum juróom-ñett ci gàddaay gi ba tey ci bani Jusayma mu di leen woo ci islam waaye nag yebalu ko fa ngir mu xeex ñoom noonu la génne moom Xaalid ànd ak ñetti téeméeri nit ak juróom fukk ci muhaajiroon yi ak ak bani Salim ak ci ñoom woo leen ci islam waaye ah, baatub aslam naa képp mënuñu ko wax saba naa lañ doon wax saba naa Xaalid di leen rey di leen jàpp léegi ba kenn ku ne ci ñim àndaloon mu jox ko benn prisonnier benn bis mu digle ni kenn ku ne prisonnier bi ma la joxoon na ko rey Ibnu Omar ak ñim àndaloon ñoom bañ bañ a rey prisonnier yooyu ba ñëw ci intervention wax ko li leen Xaalid digal ak bañ giñ bañ yonente bi daal di yëkkati ñaari loxoom jëm ci kaw asamaan daal ne allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa xaalit yàlla maa ngi lay seereel ne dañ naa ci lii xaalid ibn def ndax rey la wu ko koon dañ koon demal nga waleen ci islam rek mu dem euh, far rey leen rey gu métti métti yonente bi loolu daf ko jéggalu yàlla banu salim nag ñoom dañoo ray seeni prisonniers yi leen xaalid dénkoon te digal leen ñu ray ko waaye muhaajiraan ak lansaar ñoom kenn rëyu ci ñoom lañ dénkoon noonu la yonent bi yabalee Ali mu dem jot ñañ ca ak euh, ña ca dem fekk diggante Xaalid ak Abdurahman Abdurahman ibn Awf dafa amoon ay wax bi ay coow amee seen diggante ba yonente bi dégg ko daal ni Xaalid defal ndànk yow Xaalid bàyyil sama saxaaba yi ndax na nga xam ne uxat doju uxat bu fekkoon ne or la nga dépensé ko ci yoonu yàlla doo mën a jot mukk xëyum kenn ci samay saxaaba mbaa am ngontam kon saxaaba yi bëgg nañu lool ku ci tey di ci wax loo xam ndax ginnaaw Xaalid ibnu Walid la yonte bi doon waxal ni ko doju uhat bu doonoon or nga dépensé ko it du tax nga jot xëyum kenn ci ñoom mbaa am ngontam kon ñooñu seeni cër rëy na kon loolu mooy fat fatxu Makka loolu mooy fatxu gi gën a mage mooy fatxu gi jeexal xiram mooy fatxu gi nga xam ni jasiratul arab ci la selle ñoom ñëpp ñu walbatiku ci dini yàlla mooy fatxoo di dox diggante islam buñ daan bon doxatal ak islam bu am liberté di doxal ni mu ko bëggee mooy fatxoo bi nga xam ni euh, moo yëkkati islam daaneel xiram euh, te sulhul Hudaybiya moo doon muqaddima bi mooy li nga xamante ni ci lañ jaare pour fatxu gi mën a am hmm, fatxu googu yi amee ci la kóolute amee ci diggante nit ñi ba kenn ku ne wóolu sa moroom ña doon nëbb ci biir màkka doon ay jullit te sañuñ ko woon a feeñalit ginnaaw ba fatax gi amee lañ mën a feeñ fis fàng leeral seen diine fatax ko ginnaaw bu mu amee mbooloo mu bare bare ci lañ eh, jaare pour dugg ci islaam ba ginnaaw bi mbooleem xare yi amaat ginnaaw fatax màkka boobu eh, daanaka du weesu ñetti junni nit ndax ñi ëpp jasiiratul arab dugg nañ te bi ñuy dem ca uh, fatxu googu matoon nañ fukki junni nit moo tax fatxu màkka googu ci la bëti nit ñi ubbikoo nag ci xam lan mooy dini islaam uh, rido yi wuroon islaam yëpp it ci la murikoo ci fatwa googu ci la jullit yi amee taxawaay ci wàllu politik seen taxawaay ci seen wàllu diine yaatal ko ci jasiratul arab ci guddaay ak yaatuwaay lépp politique bu islam ak diine islam moo fi dox kilifteefu diine ak kilifteefu àddina gépp wëlbati ko dugg ci loxoy jullit yi ci sababu fatwa googu yi ubbiteg màkka googu kon ginnaaw ba fatafik jàllee am na beneen jamono bu sosu euh, ak beneen dundin bu sosu ci jullit yi bu bokkut ak nañu daan dunde bu jëkk moo tax daanaka gannaaw ba mu jàllee jiire arab yépp dañoo maase def ay mbooloo di ñëw ci yeneen tamit def ay délégation di dugg si ci diine islam di jël wooteeb islam boobu di ko yóbbu ci monde bi euh, loolu euh, dox na lu mag ñaari at yoo xam ni eh, dañuy dugg si ak doole kon maraaxil yi ñu jëm eh, ci lañuy waxtaane di doxaat ci ginnaaw fatxu mag ci ay xare yu ndaw ndawaan ak yu xasawaat ak saraya yu yonente bi sallallahu alayhi eh, bu jàllee nag ñu waxtaane mujjub yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jikkoom ak li ci jullit yi mën a jànge kon ñu taxaw foofu ba yeneen jëmi jamono wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu